Eh, Imam, naka mo? Kaya Alhamdulillah. Bañ nah, bañ bañ bañ ngeen mer rek. Bañ ngeen mer rek. Ayda. Eh, eh. الحمد لله الحمد لله أيضا آمنت بالله قسمت بالله توكلت ay ca grand Bismillah. Sabon cioè, non nang damari. Hmm? Dello che ginawa, un po', voilà. C'est bon. Merci. Oui. alors salam alaykoum. ngi di nuyu di ci encore Yakarnane. naa yàgg na gëj nañu def daje bu mel ni li ko waraloon yéen ñépp xam ngeen ko mu di situation wu boo xam ne dama ko doon dund ci dëj bu ma nekk ci suma soxna mu doonoon nit ku ma déggal nit ku ma jage nit ku ma jàppale nit ku ma féetewoo xaritoo ma yàlla def li mu bëgg def li ko sopp ñu tut ci tout suma goro également genn aduna ma jappone ne ma teggi sama tank ci lu bari donte nak rew mi moy priorité xamna naa ne bi yakamti ngeen ko parce que kenn ku nek mu ngi namm certainement ay question pour bëgg ñu léral mais dama bëggone rek comme man Sénégal dongo moma ñor té lepp lu may yëngu c'est pour l'intérêt de la nation am tiis wu ci suñu kaw lu tolloog ñaar fukki ndaw téeméeri ndaw sa jeunes migrants génn àdduna bi ñu réeree ci géej gi le er juillet ca Njaago ca wetu Ndar muy lu metti ma rek et vraiment ci nous ñu observer une minute de silence à la mémoire de ces jeunes disparus merci yal na leen suñu borom xare aljana di gëna a kawe yal na len suñu borom ubbil ñu aljana yi gëna a ak képp ku ñu fa fek fekk rawatina mbolé bi jullit rencontre bi certainement xam ngeen ne dañu ko waroon a amal mais le le le 16 di bis bi nga xamné ci lañuy Ashura waaye président de la République bi sénégalais yi tan président de la République Bassirou Diakhar Fay. daal def ben exercice boo xam

bu dee ñu réew bi yalla na leen ko suñu borom wayafal buñu ñu yoon bi it nañu jakarlo ay sentinel. yu melni ni ngir ñu tégat leen ci yoon parce que nak ki nekkon ci tol bi di yaq tol bi dañu taxaw ñun ñëpp xex pour ñu jëlé ko fi muy Macky Sall ak njabootam kon jaadu bu suñu borom defee ñu am autorité yu bees ñun ñi doon xeex Macky Sall bu ñu leen teqatalee ñu échoué bu ñu leen galgalee ñu échoué c'est parce que nous on aura également échoué li may wax nag dafa laaj dégloo ak xel pas ak xol yéene bi ñu am mooy lu defar Sénégal kon képp ku jóg pour defar Sénégal wala am yéene defar Sénégal jàpp nañu ne dañu la fekk si ci loolu ngay dox ci suñu manière c'est important ñu def 100 jours moom président ma dégg ko démb ci ay kàddoom mu ne téeméeri fan de néew na ci xayma waye ci téeréeri fanam yoyu mu né amna premier ministre bu Sénégal mësta am contradiction dik. la bu féké né néwna ba kenn la nat warna néw ci nga tappal nit garaat deug la wol du deug ngeen baal ma man wax ji leblew ma ci bëgguma ci yit fay bor dama bëgg rek li ñuy wax ñu tek ko ci bëgg Sénégal et ci loolu rek la nek mais xamna naa bala may ñëw duggu dans le vif du sujet amna ño xamné ñu ngi taxaw ci roq bi nan mais na wax ci deuxième tour bien évidemment bien évidemment xam nga nit nit day nite man bugan mën na japp ne dama bok ci actionnaire majoritaire yi fi jëlé Macky Sall sama choono fekkew ko suma doole fekkew ko suma alal fekkew ko suma nek ak suma njabot fekkew ko ba ci ñi nga xam dañuy man sax te seen yoon nekku ci wax dëgg yalla dañuy subir man bugan sama taxawaay ci wàllu politique ma leen ciy jégglu ñoom ñëpp parce que wax dëgg yàlla amuñu lenn loo xam ne man jàpp naa ne waroon naa leen ko teg muy jafe-jafe élection 2024 yi ñu weesu suñu yéene moo doon participer ci mais Macky Sall ci njublangam Macky Sall ci waa ba jiibaam Macky Sall ci doxalinu teg conc rocci ak dugal ku ne gis na li ci xew waaye damay wax rek ne man dama bokk ci aji ngëm yi parce que dama jàpp ne suñu boroom lu mu def rek moo gën peut-être xëy na élection yooyu suñu ci demoon ñun tam un pour cent lañuy am walla zéro virgule lañuy am et na ma ne man loolu nekut suñu way parce que dur na ma ne Macky Sall lu mu taxaw ci réunion ay kilifa jàkkaarloog mom mu ne leen tànk ngi ci réew mi ko Bougane du bok ci élection Je fais ni mu amé won yéné bobu nonu la taxawee man Bougane né Macky Sall lu ko fi jëlee ci loolu rek lay dox kon je dis le départ de Macky man Bougane actionnaire majoritaire ma wax kaddu gu am solo ma ne leen ñun gëm sa ku ne xam na ne ñun bu ñuy natt di féetale ñun anti système lañ ñu féetale dëgg la wala du dëgg waaw mais léegi yéen ñun ñi doon xeex Macky Sall ak ñi mu àndal ñun mën nañoo bon ñi àndoon ak Macky Sall 12 ñoo ñooñu tey ñoom ñoo baax yéen tamit. amna wax jo xamne ne mana? maanaam ñun dañu taxawon ne bu kenn fulle ci anti système ñun gëm sa bop ci man sama kàddu koku lañuy jappal lolu musu ko ci joga ah. pour votre information musuma ko ci lolu mais waxtan wax deug ci la nit su waxul dëgg wax safaan yéen ci seen bopp dégg ngeen ñi doon xataraayu di wax ne anti système lañu nekk ci kaso bi dëgg def conférence de presse ne ñoom ak Macky Sall waxtaan nañu dëgg la wala dëgg yegg nañu ba ci ne am na ñetti point de désaccord maanaam ñetti poñ yu ñu d'accord mais man nak bokuma ci sénégalais yi ñi yobalé amna ñetti pogn yi ñu d'accordul wa légui man dama bëggoon xam pogn yi ñu d'accord ba tax ñom ñu so gisé sab xarit sol so tuba yu non na def ba jot ci setoo bo gisé bo gisé sab xarit sol sa tuba yu non

Néma, j'aimerais te rencontrer pour éventuellement que tu discutes avec le président Macky Sall. monsieur le président dites à votre mandant qu'il est un ne ko wóoluwuma man et d'ailleurs damay dégg ci biir wax bi gaay yi naan protocole cap manuel dinaa leen ci gindi protocole cap manuel amul et li may wax procureur mu ngi may dégg na ma protocole cap manuel amul protocole teeru bay soogi moo am te bu ma woowee ma wax leen ma ne man Macky Sall laay xeex ña àndoon ak man di ma jiñ ne xeex Macky Sall ruutaloo ak Macky Sall man sama xel warul tey man may xeex système ne man anti système la anti système boobu ruutaloo ak système waaw sama xel warul tey après ñu ne ma non non non da nga choisir ma lank ndaare et si, et si, et si, si c'était à refaire, suba, vous nous waroon défait la même chose, je ma hésiter. J'allais reprendre la même décision. ba ñu cay wax yaakaar naa Sakami, sàq dara ndax sa bopp la sa yéen a ko liggéey Mor Fall mii taxaw duma bàyyi ma fen su ma staff ñii ma jàkkaar lool duñu ma bàyyi ma fen parce que ñi féete woon ci opposition bi au moins quatre-vingt pour cent ñëw nañu gis ma dégg naa sax am ñuy wax naan woy Bougane daf ñu joxoon kàddoom musuma jox sama kàddu kenn ñi ñëw seet si ma fii ma toog ak ñoom waxtaan ak ñoom fii ci kanamu gor yu baax yii amul kenn ci ñoom ku ma mus a jox sama kàddu ku ma waxal dama lay wax ne incha allah dana danañu organiser ndaje boo xam ne les délégués dana nu ñëw toog bu boobaa ñoom ñu joxe ci seen xalaat waaw léegi bi ñu demee ba ci cëppaandaw ñu ne ñu da tànn. mané len man lima xam suma ko waxé réew mi tos tak dal di tas parce que boba man Macky Sall jóge fi rek la bëgg kon lepp luy dolel Macky Sall bëgguma ko def mais man lima gëmone gëmoon man Bougane moy ñii tay jot ci réew mi bu ñu négocié wul won tok ci biir kasso bi sénégalais yi fekki len ci biir kasso bi jox len mooy su ma gëm c'est ma mere leen ba ànduma ñoom mooy li ñu dem ba ruutaloo ak ki nga xam ne man jàpp naa ne bu doon canceru réew am na moom la mooy Macky Sall moo doon canceru Sénégal après léegi on m'a dit oui waa ngi dégg sax su ma yenn grand journaliste yi nga xam ne train bi daf leen fi bàyyi ñoom it il a raté le train de l'histoire mais train bi départu très boobu nous doon dox ñoo ko train bi ma nga fa donc il bu a le est dogal dañ koy nangu Yalla def na dañ pour Macky Sall fi mottali na suñu yéene tànnal ñu ñu bokk ak ñun génération mais nag man dama mus a gëm ne nit waroo def loo gëmul nit waroo wax loo gëmul te ci loolu laa nekk dem leen ngeen déglu ji déclaration bi ma defoon dama wax wax ju leer la classe politique sénégalaise est divisée en deux camps Vous leen vu vidéo bi xam nga am wax joo xam waxum biir la wax joo xam waxum junj la wax joo la classe politique sénégalaise est scindée en deux camps un camp bon xam les Qataris waa Qatar xëy ci biir wax ja ëllëg danaa ci Qatar Russie am ñu dont le président Macky Sall donc nous avons ci lola ñom ont won ñep dañu pour intérêt donc xamné intérêt bu sénégalais yi la bi moy ñi français yi américains yi ak anglais loolu dara jogu ci de plan bi ñu ngi koy dérouler ba léegi et c'est ça qui fait que moi j'ai des informations et certainement les gens n'ont pas dama len di jox ben misaal pour pour vous dire parfois politiciens yi naka lañ ñuy fooye et moi c'est ça qui m'écoeure le jeudi bi Macky Sall taxawee palais nuyu gaay ñu nan ko wuy grand naka yaram bi affaire yoyu non jeudi lañ leen wan yéen lundi mardi mercredi ñu alors c'est même aller plus loin parce que dès naa kenn ci landerno politique bi mu vendredi samedi dimanche bi élection yi am vendredi moom Macky Sall wax la fa am ta ba tay kenn weddi wuko non kenn du ko weddi donc man Bougane duma magum waxon naa ko lépp lo xamne luma wax la luma gëm lépp lo xamne luma wax la luma def la lépp lo xamne wax naa ko lu may la pour askan wi euleuk parce que encore une fois man wutuma poste wutuma mos wutuma alal bu ma bu ma naree am benn dërëm bu ma sama ñaq mayul yal na doon poson ci man yàlla na suma njaboot gën a yées ci njaboot yi ci Sénégal donc du ma def lool je ne suis pas bokkuma ci registre yooyu kon li xew c'était important pour que ma leeral leen lan moo tax te bu situation bi ñëwaatoon ma defaat la même chose aw ma benn regret ci li nga xam ne ak kenn ci élection yi mais 54% quatre pour cent ñuy wax mais ñun dañ ci bokk mais oui ah non nous réclamons ces 54%. nous nous sommes actionnaires de ces 54%. et eh, fu ci nekk nag fii yii nii toog fii bari na ci yéen ñoo xam ne ñoom ñooñu ngeen voter waaw damay damay nettali xam nga ñaga ñaaw ñaga ñaaw xam nga ñun dëkk yooyu yëpp dañ ko riipeñ ka nga xam ne mooy suñu njiit gëm sa bopp njaga ñaaw moo doonoon meeru njaga ñaaw Modonon doonoon maire Ndiaganiao quinze jours avant les élections daf ma woo ne ma président man Ndiaganiao la deuk doomu Ndiaganiao moy xëccoo incha allah bëgg na gëm sa bop fi ci Ndiaganiao bok ci ñi and ak coalition jomay président ma ko li nga wax nonu la def ko nit mbokam ma ne ko def ko woo Aline Diop ba mu ñëw anamu Aline Diop mane ko monsieur le maire yónnee leen ko ay moyen jàppale ko ci campagne ba muy def yamul foofu waa mbuur yi ma gis fii ku ngeen campagne a Siré ku mu campagne waa Mbour yéen a ngi fi Siré ku mu campagne waa léegi boo demee mbirkilaan gëm sa bopp mbirkilaan kuñ campagne gëm sa bopp Kaffrine kuñ campagne waa mais gis nga gis nga naa fekk gis nga naa fekk baaxul rawatina nag naa fekk bu am daraja moyul ma ko moyul ma naa fekk bu am daraja ñun lañu doon def waa gëm sa bopp la doon def jubluwuñu ci woon ñu jox leeni poste waa gëm sa bopp la ñu doon def jubluwuñu ci woon ñu fekk leen mosal leen dañu amoon benn objectif mooy Macky Sall na fi jóge et on s'est pour Macky Sall jóge waa léegi Macky Sall jóge na fi ñun Macky Sall lañ bëggoon mu jóge fi waaw candidat yi fi nekkoon yëpp doon xëccoo ak a bari mais Bougane rek la xas mais Bougane rek la ñuy saag Bougane rek Bougane rek Bougane Bougane dafa mel ni ku leen reyal seen seen taaw dana nu ko lenn rek laa déggugul yéeg na ci taabal bi pour wasin loolu rek laa dégg mais lépp luy bon lépp luy wax ju ñaaw ñu ngi koy yëkkati di ko teg sama der waaye nag maa ngi leen di wallahi alazim maa ngi leen di jéggal parce que jàpp naa ne li ma suñu borom def man te defaluma ko dara lim ma def war naa koo seet ngir muññee ko li ma nit ñiy def falaa kon bu fekkee ne page boobu féete na boor ma ñëw nag ci alikala ji démb gi moy dicté préparé bi jërëjëf dama am luma metti parce que lu day ni président de la république wax ndaje mu demee noonu wax lépp ba mu jeex tuddul ni daan seen doole ci réew tuddul xale yi nga xam ne xaaruñu ku leen defal financement tuddul ñi nga xam ne amuñu diplôme te tey jii góorgóorlu nañu ba amal seen bopp seenu xëy waroon état je veux parler des marchands ambulants maa ngi leen di maa ngi leen di ngi di encourager

parce que une conséquence de déguerpissement ambulant mais mo waral ñenn ci ambulant yi ngir dem wuti dekk bu gën ba sen bakkan may jalé aada ak et les marchands ambulants dañu contribuer ci xex bi ngir jël fi je me rappelle événement yi en mars Ndofane Moussa dafa bàyyi jabar ak ñenti dom marchand ambulant la won ñu ray ko Moussa momu 2021 néna ko ba say Dom di am fukki at ak juroom ñett ma len yorel solde weer wu dee kon man xaaruma def pour sama rew la donc je vais le faire mais ces marchands ambulants notre respect nañu leen respecté nañ encadrer ni ma sha Allah yi sonne mais do ko dawalkatu jakarta yi sonne ñom ñoo wutal seen bop liggéey te mu waron état ñuy góorgóorlu di dang-dangi di yor seen njabot di ci góorgóorlu am seen dërëm ak seen tànk te ñooñu dañ len wara a dañ len wara jappalé mais kit des mécaniciens nga xam fu nek fu ñu lay fekk jëmi leen tey jii transport nit ñi am nañu problème transport nit ñi ci transport bi sonn nañu jaxle nañu dara waralu ko ay nguur yu cuune ay nguur yuy làmbaatu boo seetloo la ma doon wax ci Macky Sall yépp damay gis jeunes yu gëm sa bopp yi di dagg ay vidéo di ko dugal lépp li ma doon wax Macky Sall dafa mel ni tey ñii fi nekk ñoom laay waxal te pourtant vidéo la ñuy dagg rek dugal moo tax ci biir programme yi ñuy liggéey dañ ci liggéey liggéey bu am solo wax ne naka la ñuy encadrer marchand ambulant yi naka la ñuy encadrer commerçant yi naka la ñuy fexe ba marché yi ñu daal di leen méngale ak jamono te boo xoolee ci biir libre tekki bi on en parle on a dit yow fonctionnaire u état nga ñëw jàkkaarloo commerçant boo xam ne xamuloo nu mu def ba liggéey ay milliards nga naan ko fi ngay liggéeyee danaa la ko defaral moo la gën a xam ne ñuy def ba am i milliards mané ñooñu nañu leen organiser marché yi ñu def ko ay société immobilière jël titre foncier marché yi jox leen ko ñoom ñu nekk ci ay actionnaire bu boobaa ñoom danañ tabaxal seen bopp marché yi te kenn du leen taxaw te kenn du leen jàpp ma ne école bu ñuy liggéeyee xaalis amul fenn école bu ñuy jàngalee nooy amee xaalis amul fenn et man su ma gëm-gëm buggaan mooy du fonctionnaire wu Sénégal yii ñooy génne Sénégal ci situation bi mu nekk c'est ma conviction. Goumene, fonctionnaire, C'est vrai, ils sont 188 000. 181 000, ça dire Mais man, yi, fonctionnaire, yakaro nyu loulou impôt, hamu nyu loulou impôt. Goumene, ils ham nanyu yon, bi tak nit monolige khalis. Hamu, C'est ma conviction. Goumou est-ce que tey jii ñi ci réew mi ñetti yi ñuy wax ne ñetti weer yu baax la est-ce que seen dund changé na non bu seen bu seen bu seen dund changé wax ma nañu nañu dem ci boutique yi wala dem commerçant yi fu au contraire

président fatte na cee wax démb mooy loyer yi am nga location bi dama amoon lu ma ca waxoon mais j'ai l'impression que bàyyiwu leen ma xel ba léegi ñi war a wàññi location bi ñoom ñooy louer kër yi ñi war a tax location bi nooy ña koy décider ñoom ñooy bailleurs yi ñooy louer kër yi mooy ñoom punkal dégg nga démb ñu naan la ay juróomi nit ñu jox ko cinq mille parcelles neuf personnes ñu séddoo dix mille parcelles mais mais parcelles yooyu ñuy joxe coowal foncier bi coowal littoral bi mais amul fu coow musa am te ñoom waa impôt et domaine cëra luñ leen fu ñuy dagg suuf ñoom ñooy njëkk a séddu Mais Président n'est Nangul là. Président Soufi Président nangul Soufi Soufi, il 2000 parcelles. Comment avez commencé le Président Diomé, il a commencé à Il a 4 hectares 300. 4 hectares 300, 200 a mis en place 200. Il a

ngeen xam ne li ñu jàpp mooy liy defar réew mi dong mooy li ñu tax a jóg te it ci ci loolu lañu nekk boo gisee nit ñi am lu leen metti dañu waxoon ne dundinu état bi dafa ëpp nit ñi état bi ni muy dundee dañ ko war a wàññ ne leen est-ce que man bugan dama gëm ne Macky Sall defut lu bax ci Sénégal moom lu la gëm Macky Sall jël réew mi patch patchal ko fu nek mu def fa direction fu nek mu jël nitam roof fa yow nga ñëw jël nguur gi Macky Sall na mu pàcc pàccale direction yi nga bàyyi ko fa jël sey nit yow it rof c'est comme pour dire Macky Sall la mu doon def baax alors que man dama gëm ne Macky Sall limu mu liggéey lu ci bari Sénégal la rationalisation dépense au état ak train de vie de l'état loolu encore une fois soxlawul majorité assemblée nationale pour wàññi li état bi dunde ak li état bi jëfe soxlawul ñu dem assemblée nationale ngir ñoom ñu ëpp fa parce que loolu ay décision la yoo xam ne ki yor caggal guy gi moom moo ko jël malheureusement c'est pas le cas dañu waxoon dañuy def appel d'offres appel à candidature nous am ay jeunes sénégalais yoo xam ne dañu xeex boobaak léegi japonais, ne bokkuñu ci kër yi nga xamné dañu leen di defal coup de pouce ñu japp né ñoo war nañu bok ci li défar Sénégal di xal appel à candidature fulaas dalu xedem dégg na sax léegi ci biir débat yi bo leen waxé appel à candidature ñu né dañ né won pour certains postes certains postes de bu fekkee ne li fi nekk yëpp joxe ngeen ko lan ci des lu fi lu ñuy joxe amul dara amul dara loo xam ne moom moo fi des lu ñuy joxe kon nit ki da président mu <laughs> bi muy fekk fi politique euh, monsieur le président monsieur le président monsieur le président le rapport d'exécution budgétaire du premier trimestre 2024 mingi sa table Ah man président limu wax ci fonds politique yi amul d'accord Macky Sall na fonds politique yi mom nee fekkou fi fonds politique deug la fonds politique mbind mi kaddu gi fonds politique amul mais fekk na fi fonds spéciaux waaw le rapport d'exécution budgétaire pour 2000, pour bu premier trimestre 2024, mon président de la république dama ne je le mets au défi. budget présidence 22 milliards lañ ci ci consommé la ca des anam bu ko Macky Sall lekkee nañ ko woo mu ñëw ñu dóor ko ci comme ni l'en defon defoon moom dañ ko yóbbu ci document B table table ci président ce document là mon table au président le budget de la présidence de la république 28% 28%' en le budget global 24,83% la consommé ci donc mon président vous voulez faire fi fonds politique Il nañu wax fonds spéciaux et, encore une fois, et, encore, encore, encore une fois, encore une fois, Woutouma, lenn monde may mu man Sénégal rek intéressé déposé le 30 mai je crois nous ko déposé mu ci de assemblée nationale président de l'Assemblée nationale Mon président a une petite copie structure amène une copie du document bu confidentiel nag bala ñu naan way gaay ko neub jant bi li du confidentiel gis ngeen kenn ci confidentiel parce que alalu la alalu réew mi ku nekk ci ñun mën na kon motax ko déggé mu caisse noire en fait fonds politique fekk ko fi xam nga politiciens dañuy nax sénégalais xam nga bu la né man fekkuma fi fonds politique nga ne way gaay yi nañu fonds yi mais au fond, il y a 22% du budget, 28% du budget, le nous consommons au niveau de la présidence. Et globalement, 24,8% le nous consommons. Mais tu ne fais pas de nous, là, Tu ne fais pas de faire. Mais Ali Kaledi, moi, il y a un peu de faux politique. Il y a un peu de faux politique. C'est pas grave. Moi, tu sais, document programmatique dama né fonds politique yi dañ ko war a décontabiliser pour lu cay génn ñu xam fu mu jaar fu mu jëm ak naka lañ ko jëfandikoo man loolu la waxoon mais ñoom nee nañu fonds politique dafa haram mais démb seen waxi démb ji wax ju leer la nee nañu fonds politique dañ koy soppi fonds secret wax wax leen ma yeen 6 ak 9 ndax bo ci juutal day ak morom ba alors donc nañu bayyi di nax sénégalais man ci lolu rek la nek man sénégal rek moma intéressé sénégal rek moma ñor té ci lolu rek lay dox dégg na ci biir kaddu yooyu nga xamné sax yëkëti nañu ko parce que bugaan daf leen jaaxala ah. man dama jakarlo nguuru ablay Wade quand je dis jàkkaarloo sur le plan politique jàkkaarloo ma woon ak ñoom mais dama mon groupe de presse boo xam ne dafa amoon ligne éditoriale Le reporter wax sax ñu ne waaja moo ko ko waxloo te yàlla xam na ne nit dina liggéey foofa ba génn fa yàlla xam na ne du ma gis keroog dama doon waxtaan ak Salma Ibrahima Salma Ibrahima Fall bu Walf mu wax ma ne ma effectivement man jaar des médias mais man musuma la gis pourquoi parce que nous sommes ay nit ñu fa nek ñu professionnel ñuy d'ailleurs c'est le lieu de les féliciter parce que demb gis na len ñu diffuser euh, le show du président pourquoi mais nous nañu bañ ne duñ ci bok. mais parce que c'est des professionnels et xam nañ ne li def service public la pour askan wi la waaye du pour Bougane du pour keneen gis nga nit gis nga nit da ngay xam raison garder et ci lolu la nek des médias ay nit a fay liggéey des médias ay nit ñoo fa nekk des médias ay professionnels ñoo fa nekk di liggéey dewuma fa ma sama dal yegg fa bu buñ ma gisé ci seeni locaux événement la manam événement lañ koy def parce que duñ may gis duma fa dem dem barki dem dafa am ku ñew fi ñuy waxtaan mané ko deuxième euh, euh, premier étage ci fi amna société bu fa nek mune ma wa mané ko ça fait 4 ans teguma fi sama tank té man sama bureau 6e la 4 ans tegu ma sama tànk dans le bureau sixième parce que moi je fais confiance à l'expertise sénégalaise de dama gëm Sénégal dama gëm sénégalais et ma jàpp ne bu ñu leen encadrer lépp lu ñu bëgg def mën nañ ko def man bougan. nguru Ablaye Wade xex ma makissall ku ne xam ne awma tarafatal ay ni ci ñom idem comme nguru Ablaye wad man Ablaye wad musul xam sama soxla ku andak ak Ablaye musul xam sama soxla Macky Sall musul xam sama soxla ku andak makisal Macky xam sama soxla musuma dem sax budu ben yon moy ci logiciel bima len waxone ne dama ko defone pour xex corruption ci ci walu transport ma dem ci premier ministre ba muy Mimi Touré parce que mo don décider ak yeneeni kilifa ci gendarmerie ak ci police lu moy man kouma xam-xam na ne maa ngi sama dox donc man nguuru Macky Sall xamuñu sama soxla nguuru Ablaye Wade xamuñu sama soxla ma dégg ministre bu mën a fen boo xam tok ci télé non mais c'est vrai ces gens sont malades comment nga mëna tok ci télé nan Bougane état moko ko enrichir man man Bougane gey suma bat photo musuma gagné marché état ku may dis bukan gis Bougane société bu gagné marché état genn ko musuma musuma gagné marché état man ndare bu genn pé la man dama fay man lepp lu n'y a que maye soxlaw ma am bima commencé d'accord mais lepp c'est dans le privé budget publicité yi mu doon gérer au niveau de d'accord mais ku ne xam na ne euh, yor naa fi IBM yor naa fi Nokia yor naa fi Baby Nutrition Danone yor naa fi Western Union yor y fi Emirates et cetera et cetera il y en a énormément et ce que les gens oublient c'est que Nokia je gérais Nokia en Afrique de l'Ouest, excepté le Nigeria. Et j'étais le, euh, le, le, le, le, euh, manager de Grey Worldwide West Africa. Donc, il faut que nous nous baillons des sauces. Il faut que nous baillons des yakadères. il faut nous nous bàyyi des calomnie, il faut que nous nous di sosal doomu aadama yi ak di sosal nous nous nous nañu léegi ba ci coowal impôt nga nous ñu naan et puis quand C'est quand même malheureux quand j'entends le président de la République, piètre en mathématiques, oui, bon, je l'ai communiqué, 100 000 francs, Amouretti TVA, mon que 108 000. Un bon inspecteur des impôts, comme est TVA, 18 Comme est TVA, 18 Et puis, non, ne vous pas présenter, non, non bu fekkene ne président mo wax nonou nga wax ak ben nax sa xandang ben naba bu melni ni da nga nan non limu wax deug la alors que yéen ñi yor entreprise Sénégal ñomay sétane xam nañ ne TVA da ngay def TVA bi nga encaissé bu weer deewee TVA bi nga encaissé ak TVA bi nga dépensé nga def balance bi moom ngay déposer impôt bu positivé ci yow ça veut dire impôt mo la yoreel TVA bu fekkee ne dafa négatif ça veut dire que yow yaa a impôt TVA donc xam nga kon buñ ko présenté TVA euh, bi bi TVA presque 1 milliard et, je vous dis comment ça s'est passé un inspecteur des impôts moo toog ci bureau inspecteur niroowul ak ceebu ñom sar, ñom ay enseignant lañu dóor sa ceeb ba nga cin dóor trois normaux split bi dile dile dile upp nga né non xaral non des médias xaaral ma dóor leen un million un milliard TVA je dis c'est pas sérieux c'est pas sérieux man des médias aw ma fa litre essence man des médias ñu suma salaire fayuñu musuñu maa fay salaire immeuble bobu ñu nekk immeuble mako mom fay loyer ne pensez pas que les gens qui sont dans les médias médias mo len di jox vous pensez que ñi nek ci média bi média mo les di jox mais yeen ñi yor site yu ndaw ndawani vous, xam ngeen ne xam ngeen li vous?! nek xam ngeen ne lu ngeen toltolaanul lu ngeen góorgóorluwul lu ngeen defalul sen bop mais amu ko donc vous jël jeune reporter di leen dóor ci kaw patron de presse bu ñu jël seen vaillants cadreurs di leen dóor ci kaw patron de presse dégg naa sax ñuy wax naan oui dañuy jël seen BRS walla VRS dagg la impôt yow liggéeykat bi après duñu ko verser ñun man li ma jiite man xam ko nañ ñu ci këccët bokkuñu ci non yamuma foofu j'ai demandé à la direction de des médias Saint TV et Zik FM nous wax vérifier ils sont en règle avec toutes les institutions sociales et même fiscales Vous ngeen fait 2021, mille vingt un bi ñu presse dem len ngeen xoli vidéo yi 2021 dama ne len man D-Media mom man Bougane keccet l'en ma ci bokuma ci en 2021, c'est ce que j'avais dit pourquoi parce que man d'accorduma ñu amnistier la presse d'accorduma ci et puis du président moy amnistier la presse fexe ba presse bi mënal seen bop ba kenn du len balati impôt lolu mom moy Ali Kalek waye du ne chaque année nga ñëw baal leen parce que xam nga né ne ñu ko fay et man dama gëm ne du président mo wara balé imp assemblée nationale mo wara balé imp kon ba may wax 2021 né nañ ma ci këccët wax juma ma gëm la woon te ci wax juma ma la kon man mënuma bok ci ñi ñuy présenté comme étant des délinquants fiscaux man man lor rek déjà man nga lor rek nga mu mën a waxal man sama waxal lool lan nga may waxal man munoo ma waxal lenn du ma nangam nangam duma nangam nangam lenen wa me kon lan lan mo mun waxal man mënuñu ma waxal dara loolu rek lan mo mun waxal euh nga nga xol nga xol mané mané pourquoi pourquoi makoy wax pourquoi ma vous wax s'il vous plaît s'il vous plaît lu tax wax notification d'absence de redressement nee des médias mënul def un milliard au chiffre d'affaires Boss SA c'est une société d'ingénierie informatique man ma moom Andi ci ak ay nit ay jeunes sénégalais ñuy lii document wu impôt ku ne xam na ne lii document wu impôt ñoo ko signé dañoo ñëw ñeenti weer nekk ci suñu bureau di gëstu parce que nee nañu ci juróomi at yi ñu liggéey ñun juróomi benn at yi ñu liggéey ci bos xaalisu jooni jooni toll woon na ci junni milliard ak ñaar fukk ak lu topp waaw man man Bougane ma géré junni milliard ak ñaar fukk ak lu topp nga ñëw gëstu ñeenti weer gis ne man fistine dërëm yoreelu ma ko impôt bëgg a bindal ma këyit jox ma ñu ngi nii notification d'absence de redressement waaw léegi nga toog ba deux mille nekkoon ci opposition bi démb te naan bugaan liñ koy songe du dëgg la nga doon wax naan du dëgg tey jii nga bëgg taxaw naan non non non na gars yi fay impôt quoi ay sàcc la il faut qu'on soit sérieux il faut qu'on soit sérieux politique baax na mais par parloo moo bon politique baax na mais ni ñu koy defee moo ñaaw mais qu'est-ce qui a changé et puis bu ñu présenter dossier wu fisc bi temps yi da ngay def dangay dem bay jàpp ne dossier bu bees la beesul du dëgg lii mooy dossier bi fi amoon en deux mille vingt et un xam nga wax baaxul daal xam nga deux mille dama génn yeewi askan non c'est important parce que dossier bi dossier fiscu des médias fofu la jóge dama yewi askan wi et ku ne xam na ne comme nous, ay janaxi damb lañu won ci biir impôt ñom ci sen bop ñoo déclenché des opérations de vérification contre toutes mes sociétés je dis bien toutes les sociétés bu buggaan mom dañu opérations opération de vérification toutes les sociétés bu buggaan nous opération de vérification mais tu sais, premier ministre toogoon il Ziguinchor a def poste ne li impôt acharnement dossier Bobo. dossier wu vous bu acharnement le 2021. Macky Sall def ko kay kon <laughs> Mais malheureusement, il est important de vous dire que nous, on a combattu un système. Mais malheureusement, les acteurs du système sont au pouvoir. Je dis, les acteurs du système sont au pouvoir. Comme la ñu doon rupture d'Esna. et j'ai bien aimé la phrase de Babakar Justin Ndiaye quand il dit le populisme, c'est le patriotisme des idiots. nañu au Sénégal nañu sommes caaxaan réew mi bu ñu ko man bougane kuma ham ham ni ne rek lay def man awma benen passe temps awma benen distraction man suma passe temps sama passion yépp liggéey la dégg ngeen fi quand je parle de la justice il faut en parler Nous def les assises de la justice parce que pour man je xam nga xam nga li nga nit nga ñu xeltu ay borom xam-xam nga ñu liggéey nga un projet projet da exécuter et bi ci njëkk indépendance justice et indépendance justice dégg naa ko démb mu ko du conseil supérieur de la magistrature ça une au moment du bilan les sénégalais la même côté que mais ce on a la justice fait son travail dans ce pays il ne faut pas que nous fragiliser ces institution regardez ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale un premier ministre qui dit je ne parce que règlement bi normal. amna ci sañ-sañ mais président bëgg de gëmloo ne assemblée populaire bañu waron def non lolu mënoon na nek parce que ay borom xam-xam mënon nañ fa teew un président de la république tu appelles le président de l'assemblée nationale à la limite tu lui intimes l'ordre Mané. tu appelles Néna. c'est important néna parce que ñom man seen mbir luñ ma wax dama damay damay def nag moom nee na moo woo président assemblée nationale ne ko seen yooyu ngeen def lijjanti leen ko xoolaat règlement bi dëgg la loolu la wax non alors au même moment tu appelles ton premier ministre nga ne da nga koy ñaan la deuxième personnalité de l' état ñaanoo ko mais ka topp ka tofom tofom moom moom da nga ko ñaan Soyons, soyons sérieux. Il ne faut pas qu'on fragilise nos institutions. État du caaxaan conseil constitutionnel nous ne conseil constitutionnel bu taxawutoon xëy na tey fii ñu ci Sénégal du ñu ko parce que nous avons voté ci ëllëg sa dem nous Macky de dafa pas Le Sénégal conseil constitutionnel n'est qu'un non Comme institution yu dëgër dañ ko soxla institution yu am doole dañu bu ñu caaxaane suñu réew bu ñu caaxaane Sénégal bu ñu taxaw aussi di wax nit ñi naan leen dañu soxla majorité assemblée pour yeggale liggéey bi ma ne mënu leen taxaw ne réew mi dafa metti takk leen seen ndigg gaa yi takk seen ndigg au même moment yéen yéen a ngi gundaandaat yéen a ngi noos yéen a ngi ak seen politique gis naa sax ñuy joxe ay xar ak i chèque ci ñu ko mënutoon kon bu ñu Sénégal justice bobu dañ leen wara respecter moi j'ai confiance à la justice de mon pays et pour vous dire lama ma doon xeex mais tey jii la gëna a gën d'actualité dégg ngeen ci benn coow ñu naan woy Bougane immeuble dañ ko saisir non mané c'est important aussi loolu ma wax bi nga déggee ñu ne Bougane immeuble dañ ko saisir dama génn def poste ne bank banque bi wax lolu fen ne banque bi njublang la te ba banque bi tont non may may mais may may li solo il faut sénégalais comprendre six millions lañ ne mais, mais, société mais, xamné man société ak yow muy banque boobu LBA maanaam crédit agricole ku moom crédit agricole non ku moom kan moom moom crédit agricole état bu Sénégal moom moom crédit agricole ñoom Macky Sall comme man bi may def jooni jooni licence su crédit agricole laa doon utiliser dañoo jàppoon ne bu ñu daggee collaboration bi ak crédit agricole buggaan tos ko rek nous ñu bind lettre d'ag collaboration C'est fekk en 2015 BOSS SA une société d'ingénierie informatique qui ma len doon wax dafa def prêt 398 millions xam nga prêt bokoy def da fay am yéen enseignants xam prêt day am convention de prêt après bu nous société yi avons une caution solidaire L'île le miroir caution solidaire caution solidaire pour une opération opération prêt nous nous souligner 398 398 millions tribunal de commettre expert expert bi ne prêt garantir société bi prêt fay na société bi muy Boss SA am découvert bu 600 millions may leral ne découvert société bobu da doon dem ba 2 milliards te kenn musu ci wax ku sañ jàkkaarloog bank ubi compte di ronki di ronki di ronki ba mu yegg 2 milliards te newoon la taxawal c'est parce que wolu nañ dëgg la wol du dëgg léegi banque bi ñom biñu ñu arrêté. parce que dañ leen jox ordre ne leen arrêté leen parce que man damay business mais dama ànd ak caay-caay nag man maa leen wax ne leen continuer leen ci découvert yi parce que bu ngeen continuer ci découvert yi ñoom du ñu sañ a taxaw mais comme état dafa am doole six cent millions du dara ci ñoom ñu neen nañ nañ nañu nañu arrêté collaboration bi ak jooni jooni Les banque bi pour récupérer 600 millions am xam garantie amul convention de prêt amul dara ñu caution bi ma fonds pour prêt Pour nga fay nañ ko jël ko ko ci dossier bi ne mom une cautionner 600 millions yi may laaj xam nga man gënal bu doon un franc pour ma ko fay nañu dem ba c'est comme ça que ça s'est passé donc amul lepp lu ñu ci wax waxi kasaw kasaw la ak wax jo xam waxi nax saxandal la dama len wax ne len je mets au défi la justice sénégalaise et c'est important que IGAJ dégg ko c'est important que conseil supérieur de la magistrature dégg ko ci jaay doole lañu ñu nekk pour nangu immeuble bi ci man parce que amul encore une fois amul caution solidaire amul amul benn caution pour mu ne génne man buggaan a signé ko wallahi alazim azim billahi wallahi wa tallahi amul amul fenn foo xam man signé naa fa convention de prêt ak banque bi amul waaw bu convention de prêt amul caution amul mais non, ko mënee wax né yow ce immeuble bi kat dama koy nangu pour da fay ci bor c'est exactement ce qui s'est passé alors Loulou, je suis président de la république je l'interpelle Je la la xam de Vous vous dis que de je mon président de la république je sénégalais à partir de l'administration à partir de la justice ñu ngi leen di indil ay jafe-jafe te dara waralu ko lu mooy politique kon nañu xool nu ñu saafara coow loolu beneen bi nga xam ne maa ngi ciy ñëw muy wàllu wàllu mbay dégg naa ñu ne engrais bi doy na engrais bi wàññi nañu ko ñu ne wàññi nañu ci engrais bi njëg bi vingt ma ne leen ci àdduna njëg bi wàcc na trente pour cent dix yi kay tegal leen ko béykat bu leen ko jël ngir yàlla ñu ne engrais bi doy na ma ne leen demal commune wàkk nguna boo demee commune wàkk na ba fi may wax ak tey tey tey tey tey commune wàkk na engrais ba kenn distribué gu ko commune Ngayeen Sabax boo fa demee fi may wax ak nii dañu am problème ci séddale ma boo demee dans zone de Katchot nga dem dans la zone de Katchon, la zone de Jànke Souf, ñoom ñëpp problème yooyu la ñu am baykat bu ci nekk baykat bu ci nekk dañ ne bu ñu weesoog yow ñeenti saaku engrais alors que li ñu soxla ñoom ëpp na loolu dégg naa monsieur le président démb mu ne ministre de l' agriculture mu ngi wër di installer ay coopérative billahi amul benn coopérative bu ñu installé bu ngeen gisee coopérative bu ñu installé yéen ci baykat yi woo leen ma wax ma amul fenn fu ñu installé coopérative dafa nekk ni nee na les acteurs te bu ñëwee day ñëw fekk la nga taxaw yow nga góorgóorlu punkal mu góorgóorlu bàyyi njabootam góorgóorlu ba am fukki nag ak juróom-ñett nga naan ko way jaayal juróomi nag yi quoi nga investiraat yow kay ku am fukki nag ak juróom-ñett góorgóorlu encadré ko mu fexe industrialiser lu muy def yow nee nga am nga xam-xam yow du nee nga xam nga ni ñuy développer projet mais de grâce monsieur le ministre dimbalé len baykat yi baykat yi ku len yërëmul way way way na len bayyi ak li ñu yor nos agriculteurs sont fatigués parce que tout simplement dañu len fulaalul parce que tout simplement wuñ len xel fi may wax ak yow ni matériel agricole moy moy tracteur yeeg yooyu da ngay gis tracteur bu ñu teg ci euh, oto di ko yóbbu waa douane bi kar leen ne leen wuy jox leen ñu kayitu auto bi kayitu tracteur bi waaw tracteur kay tracteur bu ñuy nem di ko yóbbu kay ka dugal tracteur bi ci réew mi kay ko nga wara waxal waye du baykat bi wara réceptionner tracteur bi pour mun a def liggéey bi mu soxla donc nañu bayyi populisme bi nañu bayyi nax bi nga xam ci mom lañu nek depuis lors di nax askan wi di nax askanu Sénégal parce que nak ce pays a besoin de, de, de, de, de, de ces, de ces ressources-là pour véritablement ñu que ci li nga xamné euh mom lañuy wax ak ci xel muy président néna néna courant bi non bala may wax ci courant bi sax néna producteur yi bi mu fay na kañ la avril diggante 2 avril ak fin avril kay bo fi génnee 40 milliards lo fi fekk la jar naa fëgg dënn ça veut pas dire que damay défendre Macky Sall mais man dëgg moma intéressé mënoo ñëw taxaw bëgg wax askan ñi ne yow yaa fay alors que fayuloo loolu dafa nekkoon ci dépense budgétaire yi ñu prévoiroon tey jii boo gisee jafe-jafe yi am ci wàllu mbay mi ñaata milliards la ñu wax lañ dugal ci mbay mi ren du cent vingt milliards te que gars yi <laughs> gars yi xam nga cuune lañu dañu yaakaaroon ne cent milliards yi ñu déggoon daaw dañ koo dañ koo juug alors que xamuñu ne boo déggee ñu ne cent milliards def nañ ko ci mbay mi dañ koy planifier maanaam li ñuy fay ren jii daaw lañ ko la ko ay opérateur lebi won ci banque yi donc ren bo ñëwee yow ne da ngay auditer wax ko fépp ñi ñu dégg la wa banque yi doon lebal opérateur yoy ndax dinañ am courage lebalaat leen motax nga gis souf ci semence yi moo yi di dóor marto motax nga gis ci njublan gu metti go xamné amna ci parce que tout simplement man li ma gëm moy baykat bi dafa war aujourd'hui un entrepreneur agricole nañu leen jox encadrement bi war pour ñu mën a demal seen bopp mooy man li ma gëm parce que damay dugg ci àll bi dama leen di fekk ci seeni tool damay gis jafe-jafe yi ñuy jànkonteel mais dama ne nit ki tant que moomul suuf bi muy bayee mënul industrialiser liggéey bi mu def mënu koo mécaniser kon li njëkk mooy fexe naka lañ mun a def ba baykat yi suuf sa nga xam ne moom la ñuy bayee ñu mun koo moomal seen bopp moo gën ñu jël suuf si di ko jox ay ndoxandéem di ko jox ay nit ñoo xam ne réew la ñuy ëpp ñu alal ëpp ñu doole ñëw soppi ñu ay surga ci suñu biir dëkk il faut qu'on arrête cette histoire là et encore une fois on a confiance ci nous nga xam ñom ñoom ñoo taxaw pour xeex loolu surtout ñi nekk ci monde rural parce que nak boba ak légui amna ño ñoo xam kon c'est important d'en parler courant bi sénégalais yi sonn nañ woyofal diisal la dégg naa président ne bi mu ñëwee gars yi dafa am ay ndëgg sërëx yu ñu defoon ba wuy euh, bateau bu saar waroon a régler saar dañoo waroon fay bateau fayuñu ko mais li ñu war a njëkk régler pour man ci sama xalaat bu gàtt mooy xaalis bi état bu Sénégal di yoreel SAR parce que état bu Sénégal day yoreel SAR xaalis bu bato pétrole ñëwee pétrole brut laata ñu koy sopparñi laata ñu koy raffiner dafa am part boo xam ne état bu Sénégal moo koy supporter part boobu état bu Sénégal di supporter subvention la léegi subvention boobu dañ koy dajale mu nekk ay bor bu ko defee saar du mën a fay waaw léegi kay nañu góorgóorlu ba état bu Sénégal dootul yoree saar xaalis parce que nag li ñu banque mondiale di teg li ñu FMI di teg parce que dañ ne subvention bi dañu koy teg parce que am na cent cinquante mille familles yoo xam ne dañuy consommer en deçà de cent cinquante watts mais ces familles là nous devons encadrer, nous devons subventionner. Mais nous devons amener des gens qui filles, consommer la même chose. Si vous l'État du Sénégal, nous devons faire des subventions, des hydrocarbures, et euh, les courants, des même il y a presque 1000 milliards, 1000 milliards, il y a 600 milliards, voire 700 milliards, il y a des subventions, je veux que le blé. jëme ko ci wàllu ceeb jëme ko ci wàllu diwlin mais ngal la waay nañu góorgóorlu xaalis boobu ñu dugal ko ci askan wi parce que askan wi mën nañu liggéey li ñuy dund ci biir réew moo tax bu ma gisee sama mbokk commerçant sant yi dama leen di yërëm bu gisee marchand ambulant dama leen di yërëm moo tax bi may dégg ñu naan nañ leen jox xaalis pour financer leen marchand ambulant bi li muy tere taxaw di ko jaay fu mu koy jëlee Chine lay jóge wala Dubai naka lañ war a mun a def ba góorgóorlu ba marchand ambulant boobu wala commerçant bi dem di importer ji à partir des données yi waa douane yor ñu identifier leen état day stratège état day yeew état day muus état day muus état mënoo dëkk ci nekk consommateur fexeel ba la nga doon jëli Chine ña doon dem di jëndi Chine ñu encadré leen ngir li ñu doon jënd ñu mën koo defal suñu bopp fii ci biir réew mi c'est la même chose monsieur le président dégg naa la ngay damu di fëgg sa dënn naan wuy da nga wàññi engrais bi ah wàññi njëgu engrais bi du du performance am nga luy performance fexe ba ICS suñu phosphate bi ñuy jël di ko yóbbu Inde di ko transformer di ko def phosphate di ko def urée di dellu si di ñu ko jaayaat ñun ñu jël phosphate boobu transformé ko Sénégal ngir baykatu Sénégal mën a jot ci engrais bi ci prix bu gën a néew par la même occasion par la même occasion bu ñuy wax ci wàllu impôt j'en profite pour passer le message mais ICS <laughs> ñaata la yoreel Sénégal 230 milliards am na beneen société bu tudd Somiva xaw ma Sodiva vous nga combien lañ yoreel Sénégal 1000 milliards après nga avons oui, da ngay telli pour gars yi nga presse milliards et puis 40 milliards presse Nous Nous, nos amis de la RTS merci d'être venus, parce que je ne vous ai jamais vu merci je je je félicite par la même occasion Pape Allé, parce que c'est ça aussi Euh, bu defee liggéey da nga koy rafet mm-hmm. RTS ñun ñëpp ñoo ko moom donc RTS bu ñëwee couvrir normal maa ngi koy sant parce que amoon na sañ-sañu bañ ko def te bu boobaa it kenn du ko kenn du ko kenn du ko ci ŋàññ alors li ma doon wax mooy bu fekkee ne wàllu milliards yooyu ñuy wax ne presse bi dañu war a fay quarante milliards mais li ngeen xamul ci presse bi war a fay quarante milliards RTS APS ak Soleil ñoo 30 RTS APS ak Soleil ñoo mom 30 ñoom ñoo ko ak dara ñun ñi suñu yi wax lañ ko donc c'est c'est juste important à mon sens pour que lu ci bari lu mel noonu ñu parce que ce pays nous appartient bari na dañuy waxoon dañuy génn franc fa duñu génn de fenn lañ dul génn duñu mus a génn franc CFA wax la woon annonce rek parce que xam nga il faut ñu waxante dëgg gis nga man dama mu xam nga man ngeen baal ma ci kàddu man du ma wax mukk niir lu neex doomu aadama bi ñuy wax waxu génn franc CFA ma ne leen yéen nu nit mu ne nekk ci néeg bu climatisé nga séen ku taxaw fu ci naaj bi nekk quarante degré nga naan xaaral ma dem mosi 40 degré yi nu mu mel mais réew yi nga xam ne dañu amal seen bopp seen xaalis bari nañu xaalisu Ouguiya Mauritanie fan lañ koy imprimer du Allemagne xaalisu Cap-Vert fu ñu koy imprimer et cetera et cetera dañu war a am ñun suñu souveraineté dañu war a jël suñu yëfi bopp defaral ko suñu bopp mais CFA ñun ñoo ko moom tey jii réewu Guinée yow xam nga luy xaalisam xamoo ko ñoom CFA rek nag la ñëwul moom lañ bëgg réewu Gambie dalasi la buñ la joxee million ci sac lañ koy def nga gàddu ko xaalis suñu xaalis la ñëwul idem idem idem tey jii waa Mali wa Niger ak wa Burkina du nenañ genn nañ ci rew lu tax gennuñu gennuñu UEMOA kañ ngeen dégg ne lancé dañu seen xaalisu bop ñu dañuy lancer xaalis bi da ngeen dégg ñu def ko duñ ko def parce que doole ji mu laaj amuñu ko parce que limu laaj ci garantie amuñu ko donc billahi wa rasulihi nañu bayyi di wax nit ñi ay waxi dof parce que bo jakarlo un jeune désespéré nga ne ko lila indil problème mooy xaalis bi nga xam ne day jaar fii day jaar fii nit da ciy lekk lii diw da ciy lekk lii tey jii boo jëlee xaalis boo moom nga bëgg dem Chine dem jënd ji marchandise suñu xaalis ngay yóbbu ban xaalis ngay yóbbu du devise devise boobu boo koy yóbbu fu muy jóge ci yeneen réew yi lay jóge donc da ngay jël yow sa xaalis dem jënd ci devise pour mun a dem Chine wala nga dem Dubaï donc nañu bàyyi caaxaan Réou Ghana, le Ghana. le président pour Bess Bignoué, devenez mom, oui, il a d'accord, sauf par une, devenez, comme gagnant à inflation. Inflation au Ghana, comme gagnant à la. 24%. Inflation au Réou Nigeria, mouni 33, 37%. Ça veut dire quoi? avez un voyons, boudé l'undorbi, mouni gal 1000 francs. Bou inflation à 37%, bon, moi, tout le 3700 francs.

lan nous fi changé sommes en France nous am 270 sociétés ci biir Sénégal am lu presque 36 000 personnes yoo xam ne ñu ngi leen di liggéeyloo di leen fay weer bu dee li d'accord mooy nañu nawlante mooy dooma nax d'accord mooy dooma dóor li d'accord mooy dooma noggatu li d'accord mooy doo jël suma alal di ko man waye waxi nax sa xandang nañu génne ñii nañu dàq ñii alors que yow doomu Sénégal yi ñu ngi fépp ci aduna c'est pas un discours responsable té nak dama am luma metti quand j'entends des souverainistes africains ay activistes ñuy attaquer suñu président de la République parce que nak man d'accord na xarab suñu président ci suñu réew sañ naa mais je ne ben pas bu peu fuma xamul di dal ci suñu kaw président duma ko nangou tay duma ko nangol Sénégal suñu Sénégal Sénégal ñun ñoko nous dama bëgg ñu xamné ñi xex ba jël exemple Sénégal ñun dañoo culture démocratique quoi qu'on dise un parti comme PASTEF c'est un exemple pour la jeunesse africaine parce que nous na ci beneen réew t'ay bëgg nañu un modèle bi am Sénégal ñu jaar ci ngir sommes seen réew Le Cameroun lu mel Congo nous alternance bi ñu bëgg ñom tam ñu mun ko am kon ñun ñu jël ay AES di leen jël di leen def exemple Sénégal bëggul melni Mali Mali quatre heures d'électricité lañuy am par jour ñenti waxtu lañuy am électricité ñun bëggu ñu melni Mali bëggu ñu melni Burkina gëj na fay salaire bëggu ñu melni ñom donc il faut qu'on soit sérieux li ñu am nañ ko japp ak suñu fukki loxo kon ngeen xamné lima li gëm moy li défar Sénégal ñun ñëpp ño ci wara a lima li gëm moy li wara défar Sénégal ñun ñëpp dañ ci am part de responsabilité j'appelle toutes les forces de l'opposition ñu ñew ñu bolo ñu doon Ben ben élection la japp ne ku ci ne sañ ngaa demal sa bopp moy élection présidentielle Dina sol suma dal nak man kenn ku nekk ci ñom dana fa dem dana wax ak ñom soxlawu ma njiit soxlawu ma fis soxlawu ma gën cee bari kaddu wala gën cee bari euh, euh, ñoomin seen li ma jàpp mooy mbooloo mooy tax prochaine élection législative

et puis euh, di wax rek nañu nañu nañu xel sur la question des inondations nañu nañu bayyi xel sur la question des inondations c'est près de 700 milliards lañ ci 700 milliards yoyu jot nañu léral 700 milliards yi ñu dougal ci inondation bi japp naa ne ñu léral ko pour que ñi nga nous ne ñoo fi nekk bu li ñuy def ñu mën cee teg bët teg ci loxo en tout maa ngi leen di remercier merci infiniment